mënta jàng ba xam kiy dem safara kenn mënta dajal loolu yàlla kese moo xam ban jaamam mooy dem safara mhm. bari na ku nu jàpp ni moo dàq jaamu yàlla ñëpp te yàlla yàkkamti na ko parce que nag mhm. pap <laughs> jaamu yàlla nekkul ci yére de nekkul ci kurus gu gudd de nekkul ci mbaxana de dëgg nekkul ci rëy làmmiñ de dëgg la de bari na koy gis di ko xeeb bu ne allahumma yàlla def li mu wax fekk yàlla nit kenn du ko àttee solinam ak ay waxam yàlla xol ba la soxla te xol ba fa mu nekk yàllaa fa àgg ku dul yàlla xamoo jikkoy doomu aadama sunu boroom ci yërmandeem ak mbaaxam mën na yóbbu ñépp àjjana te du ko wàññi dara nit ki duggagul ci lislaam da nga koy convaincre di ko naxtaan pour mu ñeme lislaam pour dugg mais ki tuubagul nga naan ko safara bis bu ne di ko lakk mel ni ku yor boulangerie mel ni ku yor bi Dorée <laughs> mais kañ lay dugg du dugg koy xamal ni diine ji ku yore ku yore brochette da koy xamal ni diine ji uh-huh. diina ju yomb la salawatul khamsa lañ la wax nga respecté ko moy julli juróom wor wéru koor nat azaka dem makka ci boko mané ci boko mané xol xoola yàlla yàlla dafa bax pap cest tolérance l'islam motax ñukoy wax liman man istataa ku ko am rek boko amul wàcc na la koor gi nga ni yàlla dama febar mu ne teggil nañ la ko de fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar توكي بار اكزامبل damay دم فوتا ونا فوتا دي fuuta mu ne ah fuuta teggil nañ la koor gi comme da ngaa ne ci tukki bu koor gi jàllee nga fay ko kuy tukki tukki bu sori te metti teggil nañ la koor gi nga ni ko julli mu ne julli duñ ko teggil kenn jigéen lañ koy teggil ci bu gisee baaxam mm-hmm. te bu setee te sangoogul sax waxtu wa fa dugg si da koy julli dégg nga bi da set ci tisbaar mm-hmm. tàkkusaan jot na mais sangoogoo mm-hmm. boo sangoo da ngay fay tàkkusaan ah. obligatoirement. ñu bari dañoo jàpp ni li fekk sangoo góor rek war a goo commencé julli. genre setuloo quoi man dama leen di dégg toujours ñu naan setuma. set nga xoolal pap mhm. set nga waxtu dugg si na. Mhm. danga koy fay. pap yàlla dafa fonk julli de. waaye xam nga àdduna bi léegi li ko yàq. Mhm. muy nit ñi dañoo jaamootul yàlla ba pare dal xel. jaamootuñu yàlla dal xel koo ci wax mu ne sama sëriñ moo may yóbbu àjjana. xam nga àjjana ci loxoy kan la nekk. <laughs> sunu borom. Serigne Touba Cheikhul Khadim dafa bind ni. laa tashtari dunya bi uxra yaa fata man baa nuuran bi dujaa fa sa yëndamu. <laughs> Cheikhul Khadim nee na boo jëndee sa leer jëndee ko lëndëm da koy réccu. nee na ku jaamuwul yàlla da ngay perte yàlla yor aljanna. <laughs> te ka mu fay yóbbu mooy kuy jaamu yàlla. Pape nit ñi nañu fonk julli. yow mën nga ni doo julli benn waxtu ba pare dalal sa xel te yàlla ni bu nit ki dekkee ëllëg julli laay njëkk a vérifié. ça seetaan dafa bëri doole rek ndax ñu ñii ñëpp def ñuy daal dangay ngay jékki doo julli daal. yenn saa yi nga dégg jigéen ju naan man nag.